jema defare sun ñewé bis bi nak ñu def ko sunu tirbin ma gaay bax baax yi ma ko àndal bam mu tàmbalee ba fi nu tok amul ancien amul ku bes ba ku magat waye li am rek mooy allasina uxrijuu min diyaarihim mo fi am allasina tabawu dar wal iman mo fi am ak allasina jaawu min baadi ñetti ñee fi am li woon a ngi fi kat ñu ko def na woonu fi nekkul yàlla na yéen mbàkke suñ masaana ñëw ci bis bi nag tànn benn tomb waxtaane ko xaaj ko ñaari xaaj al usa ahmed daam njaay def bennam nu def sunu benn dégg ngeen bennam fi ko jaar doon wax li tax tas yi bari bi mu noppee nag dama bëgg a wax nu nuy def ba tas yi du bari <laughs> note leen ko nu nuy def ba tas du bari waaye fi may tàmbalee mooy néegub say ñeent a koy tax a neex الأمانة والثقة والمودة والرحمة waaw ñeent yi mooy neexal bu sëy al amaana mooy confiance mu wóoloon te tëdd nelaw athiqatu mooy wóoru ba dara du wéer ci néeg bi al mawadda mooy nopp nopp nopp bay dagg di ron arraxma mooy yërmande walla fa ne ku bëgg ku la yërëm takkal ku la nopp waaw ku bëgg ku yërëm takkal ku la nopp xaaj bu Oustaz Ahmed def xam ngeen ne wax na lu am solo lii lañ yaakaar ne mooy tax say tas yu bari ak lii dama bëgg lim xëy na fukki yëf ñaar wa ñett may di yi ma jàpp ne bu ñu ko moytoo tas yi wàññeeku bu jeexutit ginnaaw ñeent yi ma lim léegi dafa am luñ tuddee tanmiyatu thaqaafa azawjiya maanaam culture denc ak culture ñu denc la suñu jëggee culture jaambur di ko dencante du baax suñu jëlee sunu culture bopp nag di ko dencante bu baax bi ñu tàmbalee ci réew mi naan monsieur et madame culture jaambur lañ jël bi ñu tàmbalee naan monsieur et madame ñun dañ daan wax jëkkër ak jabar walla soxna ak sëriñ léegi nañu ñu changé sunu bos nag koo wax mu ne monsieur walla mu ne madame madame mën naa def lu ne monsieur it mën naa def lu ne kon culture boobu la ñuy soppi dëlloo saat sunu bos ndax ki ñu naan sëriñ day am lu muy jomm ki ñu naan soxna si day am lu muy jomm waaye monsieur li mu jom madame nag looloo tax nañ delloo si sunu culture bopp tegaat ko fan ko tegoon yaayee toog foofu de waaw kon alaaj ma Maodo fay nee na ñëw na moo sol li ñu man nii toog sama ginnaaw sama taalibe bi yëpp moo ci dàqa nelaw ndax fi ne ku ne leen Ousseynou Sall jàngal na Maodo Faye fay ngeen naan déedéet waaw <laughs> mi ngi nii euh, tabarkàlla ba daal mu nga ko <laughs> kon culture boobu ci wàllu sëy nan dellu si sunu nan delloo si sunu bos te delloo tubaab bi bosam xam nga ne sëriñ bu kaalawu ñu naan ko ma dem ma dem sëñ diw loolu baaxut ma dem sëñ diw loolu kenn du ko wax dañuy wax soxna sas Aline Mbaye bu ñaareel ba ci lii defar néegu sëy mooy ñaari way dencant yi yëpp yëg na dañ leen a sant lu ñu tuddee jonge almaruna wal musaamaha kuy denc jabar dangay ngay jonge ku ñuy denc da ngay jonge yonent ba nee na bu takk takk leen ku jonge te nangoo ami doom jonge cib sëy mooy lan góor góor gu woyof jigéen ju woyof loolooy jonge waaye am na ñoo xam ne fi ne jàpp nañ ne ku dund sunna du jonge yaa ma def ne kuy góorgóorlu ci diine ji doo jonge tazawajul waduudal waluud fa indi mukaafirun bikum al umam yawmal woyof mooy may jëkkër kenn du ko mën a mere woyof mooy may jabar kenn du ko mën a mere ku sa jëkkër tooñ ba noppi nga ne ko baal ma yow moo la tooñ nga ne ko baal ma xam nga ñaar li ñuy fay bëriwul mu imaam Ali ba baal pël li muy fay bëriwul géwël li muy fay bëriwul li ñu fay géwël bu jëkkëram wàccee balaa agsi ci fi muy toog mu ne ko sàll balaa isa suq mi ci bàlla gu barke ji mi ci ñaani bëkk biigee bañ ba bëkk njaay xamul ay na judd rafet màgg am xaalis dënam aljanna kaay toog <laughs> fu problème du fa waaye sa jëkkër liggéey ba wàcc di dox di ñëw ngay xool muy dox di ñëw ngay xool ba agsi na la asalaamaaleykum nga ne ko faal ko nag faal ju dis gën nag ak benn ell lu am solo la kon alayhi salaatu salaam doon na jàngale bu génnee buy del si ŋàbbu dara te kër gi ñëpp a ngi fi mais léegi si ni ko Oustaz Dame Ndiaye waxee koo nuyoon teel ne ko ana madam tontu la rusloo la ñu takk ci jàkk ji di fase ca tribunal ba rek ñetteel bi ci liy tax say gudd fan mooy ku ne di def say say euh, devoir ndax devoiru ki jëkkër ji mooy droit jabar ji devoiru jabar ji mooy droit jëkkër ji wala hunna na la si alayhinna bil maaruf su fekkee li la war ci jabar yaa ngi koy def li ko war ci yow mu koy def kañ ngeen di mero du gaaw waaye su fekkee ne mën ngaa mën ngaa def te doo def Serigne Fallou moo daan wax ne Senghor mu ne am na ko xam nga lu yokk ab àndam mu ne ko déedéet mu ne ko tege lu kenn mënut mbaa gàntu lees man tege lu kenn mënut day yàqub ànd gàntu lees man day yàqub ànd kon adaa ul waajibaat adaa ul dafa bokk ci liy guddal fan ab sëy mooy defal li la war waaye di di di di rek di dribble rek di buriyal rek xam nga fan yi nga dégg sëñ Mbàkke ñu naan marchandise yi yokku na am na jëkkër yoo xam ne ñoom a guñ ne yokku na léegi ñoom daal 3000 lañ daan joxe ba tey 3000 te 3000 mënut a jënd léegi tëllu tëllu jën kon li la war am na lu des te nag jigéen mën na lu ne ba mu des yor kër ah falaa yuxrijannakum min al jannati lu ca tege fa tashqa bu kenn liire fa tashqa fa tashqa bu la seytaane man ma ne bëgg a génn aljanna lu war ci kër gi lépp nga di ko def coono tega la ku daw coono boobu ne sëñ Mbàkke na jafel say bokk ñeenteel ba ci lii tax ab sëy tas gi du bari mooy joxonte orma joxonte orma ku góor ki ormaal ku jigéen ki ku jigéen ki ormaal ku góor ki orma mooy ku ne nëbbal sa moroom say ayib ayibam yi nga xam nëbbal ko yépp mu nëbbal la yëpp waaye soo xamee ci ak werante mooy jur yi nga xam ne mooy dindi ak ormal juróomeel ba Oustaz Saliou mooy muñ as-sabrul xam nga fi ne mer yomb na mer loolu ñëpp ko mën di waaw ah, d'accord jox leen la ci ndigal ñul ñu Ablaye Dia bu Sénico ne ko lim defal l'islam barki démb ñëpp ci kontaan deux mille mètres trois mille ku jox ko ñoom Oussa Ahmed Dame Ndiaye mii ne leen li leen fa centre te maa ngi ne koy ànd tabax ak ah, góor Ablaye Dia Sénico li yàggalub sëy muñ daf caa bokk ma ne mer yomb na mer yomb na ñoo ngi dalal sunu gan Alioune Ndiaye bu sosaat ci ci taalibe mën na law jàng la bokk waaye ñëw na <laughs> waaw mer am na jëkkër yoo xam ne bu ñu meree muus mi ci kër gi dana ko yëg mbindaan mi dana ko yëg porte yi dana ko yëg tele bi dana ko yëg fenêtre yi dana ko yëg ndax ndax muur xujaa mer waaw doo muñ déedéet day mer li koy yëgal mbindaan mi mooy day xëy jox ko dépense bi na ko joxal faatu su soo wàccee ne ko ana añ bi mu ne la mu ne añ bi lan kañ ngeen di juba ginnaaw yow da xëy mer ba jox mbindaan mi dépense bi bu melee ni nogay fale lay denc lépp nelal ko bu mu jóg nag dégg naa ko fi nogay dégg naa ko waaye nelal ko bu mu jóg waaye su melee ni nogay da nga koy jox dépense da ngay jox dépense bi mbindaan mi mu toog jàpp njàmburam nga wàcc laajib añ mu ne la laaj ko ki nga ko joxoon am déet te kat sunu borom nee na euh, pànk léeg-léeg mu baax waaway su ëppul ndax xadaaf laa man zakkaaha wa xad man dasaaha ca tege wala boog fa alhama fujuraha wa taqwaha laa bëgg wax kon muñ day taxa am sëy bu yàgg muñ li ñu lay def ci néeg bi benk ñenk dafa am kuñ daan wax lóot alayhi salaam ab yonent la jabar ja da ko fekk mu toog di waaraate mu woŋ ko tegal ko cay baat dong yi mer neel ko wàcc ko muy leen su ma ko wàccee fu muy jëlee ci tuyaaba xam nga mbàkki ki jàpp ne bu ko jabaram waxee lu lu naqari day tax mu am tuyaaba su muñee du ko wacc mu ne na ko fi téye rek mu téye ko fa jabar ju baaxul la amoon mag nooxul waaye teewul ñu téye leen rek muñ gaa ko def ah muñ ngaa ko def te itam takk jabar nag fenêtre la bu lu yàlla nu yàlla defal waaw ay xam ne yaa quelque chose ah fenêtre la bu yàlla defal ba xam bu nu meree nu ñuy def waaw fëgg sa dënn man doo sa morom sunu borom ne eh, مموي العلي الكبير لليك موتال غنا غول لاكال 8 منو جدار موني رك موني رك نخ تي لا نيو خامي سك benneel bi muy juróom benneel bi ci liy tax ab say gudd fan ba fase du bari mooy problème yi mu am ci kër gi ñu di ko waxtaane bu problème jafeñ-jafeñ amee dañ koy dañ koy exposé waaye fi ne ngeen baal mu fukki góor yoo dajale juróom-ñett yi ñëmuñ débat ah jar naa wax de fukki góor yoo dajale juróom-ñett yi ñemuñ débat ndax ndax débat ku jóg moo koy man ak ku argumenté bu fekkee néeg bi 3000 dafee réer te ak jongama ji danga fi nekk débat boobu du neex a débat ah am di Seydou yéen ñaar doo nga fi nekk 3000 francs réer na mu woo la débat yow kay takkal soo fit rek ne ko maa ko jël débat bi jeex waaye danga may jéem sàcc ni góor ñi ragale débat juróom-ñett yi noonu la jigéen ñi bëggee débat ñoom tam juróom-ñett yi ndax sunu borom dafa mooñ jigéen waaye daa mooñ ci moom ngeen baal ma ci baat bi bari wax léegi na nga bëgg a takk jigéen ju bëriwul wax ci do muñ do rep do do tontu question fo ñep ñaari baat nga mu man yaay dama bëggul ñu waxtaan nga ne waxtaan lan man dama sonu daw nga débat te ko alquran jangal wuro ragal débat ndax diggante iblis ak sunu borom débat bu ne jaar na kon khilafat yoy dañ koy waxtane kero bi sunu borom di jàngal nit bu jabaram tàmbalee indi ay tànk def na ko fa isohunna wahjuruhunna fil madaaji wadribuhunna waaye fa mooy waxtaan leen waxtaan wu niroog waaraate fa isohunna waxtaan wu niroog waaraate tey it moytu jongama ji def dara tey nga corriger ko tey loolu baaxul sas ngom am jabaram mu def tey problème nga corriger ko tey loolu baaxul alxuraan keera ba suñu borom ne usjudu li aadama iblis lan daf ko ëffal ne ko lu tax keroog keroog jeex na keroog waaye mu def tey nga corriger ko tey tangor yu muy àndal da lay tontu tay ah nañ ma bal na xawma soxna ci ñew na am déet waaye daa am ci sama soxna ko xamne <laughs> ma misal ci sama bop dama ko jox 5000 pour mu dem marché dom jim don bot mu ngi ci mbolo mi mu jox ko 5000 ba mu ngab min jeppal ila marché as ngelaw 5000 bi dom jim botako ngab mbak moom mo nga bu ci bi léegi nak ñuy dem marché chemil mille ba di agul marché moom xoma da rat rot xaw ma dañ jël waye chemil ba agul marché mu ñew nak ba ci kër gi nan ko diw ana cinq ba xam nga man ko laaj diw ana cinq mille moo ne ko cinq mille bu lan mu ne kii kan laa ko joxoon bi may dem marché mu jël beneen ne ko bii ngi nii bii nag boo ko jox moom dégg nga ñu dem bii nag boo ko jox nga ñu dem léegi nag bët bu seen mën di débat bi ma lànk rek parce que su ma indee débat bi day yàqu te it nit léeg-léeg mu toll foo xam ne fii sëñ Mbàkke nga xul ko moo ko gënal nga xool ko nit léeg-léeg mu def dara nga yuuxu ko wax ko dara mu sal sedd moo ko gën a nga ne nem mën a cell rek gis nga débat ba boo ko téye foofu non lu ne nga fa mën a amee macha allah <laughs> waaye tëll nga ne tëll nga ne tëll soo toogoon ba mu yàgg nga ne ko sa jëfi keroog ja moom noo ko mane fekk jëf ja màggat na mën naa am la nga cay amee bokkut ak nekk ko tey sunu mel na mag ci sunu mag ñi Serigne Touba radiyallahu taala anhu danaay faral di netti lu lool dafa jël yére yi jox soxna yi pour ñu waajal korite mbaa am ca ku jël lañ ko joxoon lem ko ba mu jekk ne ko ku tër ne ko dool jox lu mat loolu la ko wax mu dem ca ka doon séddale ne ko diw nee na li ngeen ko jox matul sàkkal ci yére jox ko ba mat xanaa mu jeex ay bu doon noonu da cee jot lañ lay njëkk a wax te nag danga am juróomi at yoo xam ne doo xotti kon muñ gi daf ci am solo waaye di régler problème yi ci waxtaan dafa am solo ndax ku dul informé sa jabar ñu informé ko te information yi nga koy jox day gën yiñ koy jox te ku umpule nit lu ñu lay informé ci moom nga gëm ko waaw mu nga lu am solo la moo tax wàññi leen whatsapp yeeg information yi whatsapp yi wàññi audio yi wàññi audio yi yar naa wàññi de bu juróom ñaareel ba sëñ Mbàkke ci liy tax sëy du gaaw a tas mooy boole ci ñi ci war a bokk ak tawsia alal iyaal boole ci ñi ci war a bokk bu njëkk boo ñëwee ne danga bëgg soxna dañ lay wax demal nuy ji papaam diw seetlu woo nga ñëw del si ñu demal nuy ji yaayam diw dañ laa bëgg a kalaame ak ñoom ku ci nekk boo cay dem bu la sa jabar waxu dara war ngaa ŋàbb dara nañ ma baal nag bu dee ci séeréer nga jëm nga jënd mbur mbur bu dee séeréer nga jëm nga mbur ah waaw moom xam nga loolu dégg de bu dee ca pël ya nga jëm doo jënd dangay jàng seenu làkk nuyoo ca booy ngóoro pël boo ñëw da wax jàmm mbaal doon ñu ne mbaalee jàmm jàmm tànkaay odo yaay ma odo gor ko ma bu fekkee fa nga yem sax yem fa ñu bokk bu dee lébu yi booy dem ngàbbal xaalis Tiens, ah oui ñooñu fi ne su su su ñol-ñol amee ku ca jot rek yedd dañ lay jàppale ah oui ku ca jot rek yedd maanaam tey boo doon nuyu sa sa goro yu mel noonu ŋàbb lu baax xaw kuy gëm sa nay waaye moom doon ko mënoo ko walay loolu lu am solo la juróom-ñetteel bi ku bëgg sëb say yàgg dangay bëri kaf ak fo ak ree moo xam ñor na moo xam ñur il faut ree kex kex kex daa baax de te it waxoon naa leen ca Taïba njaay di leen ree sa Saliou am na góor ñoo xam ne am na lu xew nag itali léegi <laughs> Italie góor ñëpp amoore la ñuy wax amoore waaw Italie ñoom Sidi ak ñoom Alioune Fall ñëpp amoore jigéen eh, est-ce que jigéen sax ñoom tam jox amoore am na ko jox amoo noonu lañ koy wax mu ngoog kon nun la ñun fii bu dee ci démb dañ daan wax na jaay bu dee noge mu noge mu ne na jaay ñu indi ko banaan tonton léegi dañ wax bu dee sa baay mu ne papa bu dee jëkkër ji mu ne papa waaw bu ne papa mooy yaay mooy papa ji waaye buñ ne papa mooy muur xujja waaw euh, ku tedd kii yàlla yónni ci noonu saas Alioune nee nañu daa xëy benn bis na suñu yaay Aïcha ñeme nga ma ci rawante mu ne ko rawante menn mu ne ko waaw rawante men mu ne ko waaw ñu ne jox leen ñu départ saxaaba yi ñii nga waaru ñii nga jàpp seen cikkim waaye sëriñ bi tey dafa bëgg a rawanteeg soxna si ñu ne su ne ne ko aw ma biye mu ne ko daañu aaye ku séentu mu ne ko déedéet mu ne ko comme amuñu bëri ko ba may teg nga séentu kaay ma defal la samay loxo sama ginnaaw nga taxaw ci séentu su ne ay sa ne na poma safuma li ma tungoom may seetaan a neex ci man mu ne pomi safuma waaye sama sëriñ moom ma tungoom ñëpp yi seetaan ah loolu am na solo de loolu am na solo de suñu mbokk yi dëkk càlle dana mos a am dëj sëñ Mbàkke man sama ñaareel dañ koo tuddee pël turu pël mu ñu fekk ko ci mbooloo mi wooyuma ko pëlam xanaa wooxe ko turu sunu jaamu sunu yaay maanaam doomu bàjjenu sunu yaay bu jigéen xëdi mëri noonu laa ko wooxe sama bàjjan da ca bég ba ni mu génn àdduna fu mu waxtaanee wax ko xanaa li ma fekk doom ci biir mbooloo mi toog rek ma ne ko xëdi mëri kaay ma gis la rek sama bàjjen xëm gis nga am na góor ñooñ bu nu toogoon seen soxna seen jabar ñëw bu leen nuyoo ñu leen koy nuyoo bu leen xoolee ñu xool fa leen dafa am saxaaba bu mas a denc ci soxna sëñ Mbàkke bi mu ñëw ci mbooloo mi toog comme ni Maodo dafay toogee rek lim sol jàpp ko mu sol mbaxana kaalawu ne toog yonent bi xool mu ne ko jaabir mu ne ko labbeek mu ne ko xanaa dangaa ko waaw noo ko xame mu ne ko ni nga solo <laughs> ni solo mu ne ko waaw takk naa séet mu posé ko ab mbaa gone nga takk mu ne ko déedéet jeeg laa takk de mu ne ko mënoon ngaa takk gone ngeen di fo waaw mënoon ngaa takk gone ngeen di fo nga di ko fool mu di la fool mu ne ko jeeg laa takk de ndax sama yaay daa faatu bàyyi fi ñetti jànq ma defee ne jeeg moo dàqa uuf jànq yonent bi jox ko loxo ne ko wax nga dëgg nag waaye boo dil soit ci xeste bi nga di ko foye mu di la foye cettt am na jëkk jabar yoo xam ne lu rekk leen manqué da leen di fekk ñi ngi lekk ñi ngi naan waaye duñu am yaram ndax ndax duñ duñ leen kenn du foog ñoom romban terek rek bu ñëw na la waaw na jaay seetlu nga nang oh, na koy ah seetaan nga wah seetaan naa ko déedéet di kër du neex mbakke te li yalla tv, ci jigen déggal yonent bi nga di ko fayé mu di la fayé lolu daf ci am ñu ngi nii toog de fi ne ku la ci romboon nga ne ko lalal naa la fii ba déwén fu mu xare gura may la sa togg gi neex na fii ba déwén fu mu togg yàkkal la waajo daa am ca tribunal ba jigéen ju rey ab sàcc juge bi di àtte daal ne ah ki rey kay jërul gëstu waa dig jërul ñuy jóg ñu ne ha mu ne ki rey dafa rafet mën a toiletu man boppam mën a sañse mu ne ko mën a maanaam yooyu ñuy wax moom moom na ko jël même su fekkee moo rey noonu la jigéen mel sama bàjjan ndeysaan ba gaañu yal na ko yàlla yërëm looloo taxoon ñu juboo maak moom loolu tax ñu juboo sama bàjjen mu soloo gën rek ma ne ko bàjjen ku la musoo mu ne ah, jekk na ma ko bi billaay jekk na sàll ngaari bu fekkee takk lay dem benn ba man la koy jox bu dee guram man la koy yët ku ne Aliou Aliou Sall baaxul mu ne la kenn gënu ko ndax li ma koy lalal yal na ko yàlla yërëm loolu jigéen du ko màggataale jigéen fi ne bu ñu doon fecc fii léegi teg na seen jigéen dugg dugg dakkasi dugg ci biir géew bi ne la mag mos ci balaa jeex loo ci man mag mos ci balaa jeex loo ci man kon kaf yooyu jëkkër ak jabar di kaf message yooyu di jàll ak waxtaan yi dafa bokk ci lii téye ab sëy bu juróom-ñeenteel bi a tatwir wa tahdid tatwir mooy ngeen di soppi ngeen di soppi soppi mooy lan bu leen yem ci li xewoon démb ñëw leen ci li xew tey comme li naan wax najaay nga daan wax jabar ñu soppi ku ñëw ci baat yu bees yi ñëw leen ci baat yu bees yi bu amee lu xew jigéen ñi di ko sol nga fexe ba mu sol waaw bu amee lu jigéen ñi di sol fexeel ba mu di sol waaw baat yu bees yi waaw baat yu bees yi mooy léegi ay papa chéri yeeg euh, je t'aime yooyu ah waaw al albert moo ma ko laaj ma moo tax ma wax ko alxayaatu zawjiya mbàkke toujours nit ki day mise en jour nobel gi no ak nob dañ ko mise en jour loo ko day def ni application rek ne fess nga soxla ko du ñew nobel dañ ko mise en jour de waaw sa dam junj na fi legi jëkkër joo xam ne ñemewul ndox ak bëri ci jëkkër ndox nag darab bi fanaan imaam Adama darab bi yenn ci lal bi xaw ma ci fanaan waayu du yow dalex nijaay ma ma lil la xëcc teg fële indi la xor dabbu darab parce que ndox yaa ngi ñaq te boo tëddee ñaq wi ci lal bi y a quelque chose léeg-léeg jigéen mooy tax jëkkëram ragal ndox ndax war ngaa sangu ji de day ñéeg boo waajaloon yépp ba mu ñëw kay sukk ci tànkam sukk ci tànkam am na façon bu boo ko waxee dana ñeme te dana dem sangu ji rawatina nag boo ko nuugalee ndox mi mu dem def ci yaramam yëgut lu metti léegi mu tàmbalee ñeme nag da koy entraîné nag léeg-léeg nga fàq ko socc jox ko mu socc léeg-léeg nga am tàngal bége jox ko mu macc lay seede yàlla dégg nga la ca tege mooy ci fukkeel bi sëñ Mbàkke mooy nose waxtu yi li des te waxtu yi des ko nga exploité ko waxtaan ak diggante bi xam nga noonu tey nit kii day yendu àll kay yendu àll bu ngoonee bu ngeen wàccee ku ne continuer ci sa téléphone léegi tey temps bi ngeen di am bu ngeen waxtaan benn yoon rawatina léegi bu fekkee da bëgg lire ojo sàngam seet sàngam lire audio sàngam nangam nangam day mu jàgg conversation bi war a am waxtaan wi war a am du am ku koy jël téléphone bi moo koy jël rawatina bu dee jëkkër yoo xam ne benn film wala benn télé du ko raw su boobaa waxtaan du am ci diggante bi benn yoon wax na ko tey kon temps bi ngay dese waxtaan leen ci xanaa débat ba yàqul te dana fayu nag daf lax may dem ak paate génne ñaari at sa problème yow moom tam mooy kuy paate bokk na ci loolu tam ngoro yu yàgg yi ñu wàññi ko nopp xale bu jigéen mu nopp la ngeen tàmbali 2000 ba 2010 2010 ba ngoro yu yàgg yooyu day tax lim la fi nopp boo takkee duutu mën a nobaat lu toll noonu ndax maa jaala llaahu li rajulin min xalbayni fi jëw fi ngay ngoro ñu nob la lool waaye ngoro ga yàgg lim la war nob lépp àgg na ci cent lim amoon ci feem yépp jox na la ko léegi nag boo takkee lu muy indi day tàngal ceeb nob lu tàngal ceeb Nabelu tangal ceeb mooy yim don def bi nga takagut yoy rek lay def yim don wax yoy rek lay wax du amad yu bes motax ngoro gi da wara gat seti nga ko ben ñaar bu ñettee takal gaaw aha ngeen tambali fi nak waye dama dem ba kay jox tak, lolu bax ustaas da mi ngi junjun tank ñaka am dom bi na ñàkk am doom gi bu def bu fekkee planning familial la ko def ndax day tax euh, sa butitu nobbukaay day day day découragé ci su boobaa dootul andi lu mën a bees bokk na ci lii tax ab say yàgg sëñ Mbàkke mooy fonk ki nga yor ki nga yor fonk la fonkante boobu day jur sëy bu yàgg fonkante boobu day jur sëy bu yàgg mooy nga bàyyi ko xel mu bàyyi la xel nga fonk ko mu fonk la bokk na ci fonk sa jabar ñeme ay goro te di leen seeti ku dul dem sa kor goro mukk loolu baaxul te kat ku gëj sa kër sa sërite rëy ku gëj sa boo indiwul sërite bu rëy du tekki ne ñëw nga moo tax da ngay fexe ba doo gëj sa kër jëkk sa këri goro di fa dem ba far sàppi leen rek fukkeel beeg juróom ci yi mooy lu ci ne xusnul muaashara yorin wu rafet القران نانا وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف موي يور بو رافيت بوم خيف بوم مر بوم رافلي بوم تدي بيتي ناي ليك تي ليك غينا ام كاليتي ndax kuy def doo de sang weer wu jot bu dul lekk luy maye sang léegi bu ñàkk sang doo de sang jigéen dee gis règle ci weer wi juróomi fan yu muy yu muy xëpp deret nañ ma baal ci terme waaye noonu la léegi nag su noppee doo ko defal ab sandwich ni ko kollay defe ak ak ak boisson mu lekkaat lu baax mu ñëwaat waaye bu fekkee li nga yor rek nga joxe bët bu set doo dem marché doo dellusi léegi tey la xew marché métti ñoom lool te damay wax ne jeeg bu la romb bu jóge marché di ma ci crème dépense am doyul maa la ko wax jeeg bu jóge marché ma ci crème dépense am doyul ndax dépense bu doyul ndaw si dana wër barab bi yépp pour am daggitu yéet buy jar juróomi dërëm te xaywi na da ngay wër rek bu ñaqee ba tooy xepp nag romb mer crème glace ne ko jaay ma ci benn mu jaay ko mi ma ciy ñibbi ndeysaan yal na ko yàlla yërëm xusnul muasara mooy yor bu rafet yor bu rafet bu mu xiif bu mu rafle bu mu mar bu mu tëdd biti danay lekk lu baax te lekk dina am qualité fukkeel beeg juróom benn mooy ñu fexe sori bokk yi ci li leen concerné wul ci sëy bi ndax jigéen su meree bu nettilee yaayam ñaari mer la góor su meree bu nettilee yaayam ñaari mer la su me nettilee papaam muy ñett kenn la papaam muy ñett muy juróom benn mer sëy bi altunu ko am na koo xam ne fi nekk ni boo ko woŋoon woŋ raj mu ne yaay moor xuj daf maa woŋ woŋ kenn du ko nettili waaw waa faisuhunna mooy mer mu am ci sëy nan ko nan ko jéem a régler ba baa ñu cay tële bu ñu ca tëlee nag door koo yët ñelan ca tane ñu jàppale leen ci bokk na ci liy tax ab sëy gudd fan mooy jigéen jàng togg gis nga kuy togg lu neex di tontu lu neex di taaje taajin wu neex kenn du la mere ndax ba jigéen ja ne jëkkër ji dama bëgg a màggali daf na ko dangeen a bari dox mu dem ca Cheikh Ka jënd fa ganaar gu toll ci nen te pareegul xam nga ganaar der bi dafa woyof der bi waaye yi neex ci ganaar gi saf yëpp ca lay nekk ak ci óom ya ganaar foofu la neex neex suux yu gàtt gàttam yooyu laa bëgg a wax ganaar suux yu gudd yu neexul yu ci dënn bi suux yooyu dafa gudd ndaw si na coppet ca sox yu gàttee rek ak na mu ko defe rek ne ko ko càpp waa ji sàq mi fii sàq mi fii mu ne ko nijaay damaa bëgg a màggali mu ne ko demal ba gannaaw tuudaa waaw nee nañu ñu woo ñu dugal lii après ñu del soit ci jotaay bi xasbak faddal jërëjëf